di ndigalu sëriñ Muntaxa Mbàkke ibnu sëriñ Basiru Mbàkke xaadimu rasul xalif général des mourides yal na fi yàgg lool te ànd ak wér sëriñ Abdul Ahad Mbàkke ibnu sëriñ Cheikh Abi ànd ak sëriñ Amsatu Mbàkke ibnu sëriñ Suwaybu Mbàkke xaadimu rasul ak kuréelu kennal sëriñ Touba jaaribatul maraaxib ñoo am mbégte di yëgle ko woote fukkeel bi édition bés bi ñu jagleel xasida sëriñ Touba yi di bésub sant ak kennal sëriñ Touba xaadimu rasul fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mars 2018 ya Kolobaan juma Masalikul Jinaan ci njiital sëriñ Basiru Mbàkke Abdul Xaadir porte parole xalif général des mourides ñu di ko yëgal ak di ci sàkk sàkku teewaayu njabootuk sëriñ Touba gépp cheikh yi taalibe yi rawatina jàngkatu xasida yi rajaskat yi ñiy durus ak mboolem këru diine yi thème bi dund ak liggéeyu sëriñ Touba ak njëriñu xasida yi muy dixième édition bés bi ñu jagleel xasida yi ku tedd ki ki sunu borom kennal muy kenn ñu di ko kennal di sëriñ Touba rek fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mars 2018 ci ndakaaru juma masalikul jinaan ci kolobaan 9h ci suba ba 19h sëriñ Abdoulahan di ñaan ci barke xasida Touba ku teewee bés bi donne na doon sa pajum aajo ku ci bëgg ay leeral 77 632 39 35 wala 77 324 01 77 268 03 07 wala 77 441 59 53.